li maire bi ëmb xam na 96 villages te ay daara yu bëree bëri ñoo fi nekk ak ay école arabe dañ ko soxla lool lool lool eh, ak borom xam-xam yu bari nañ fi ak ñuy jàngale ñooñu it kaamil yi day baax ci ñoom surtout nag eh, xaaji suuf yi indi moo lañ gën a yittewoo di koy seet. ndax ku tal na Cheikh Ahmad Bamba bu ko dee eh, melal wenn melo melo wi loola du neex kenn daal ku julli rek neexu la. même rajo bi sax dégg naa ci ñoo xam ne ñi moom moom tarixa yeeg ak ñeneen ñi nga xam ne duñ julli sax ñu ngi koy ñu koy ñu koy ñu koy ñaawlu kon noonu noo ngi koy ñaawlu bu baax a baax waaw buñ sañee moom journal bi du fi duggati ci réew loolu lañ bëgg dàngam alxuraan ko ci nekk sa xel du nekk leneen sax ba ngay jéem a def tourisme wala leneen doo soxla wala leneen sax rawatina suñu gox bi yooyu ñu xamuñu ko sax hmm, jàpp naa ne bu ngeen déglu rajo sax da ngeen ci dégg 80 da ngeen ci dégg maanaam hmm, sëriñ su bare ñi ngi ciy wax rawatina yoonu murit sëñ Bass Abdou Khadir mooy yor kàddu murid yi wax na ci ba ñëpp dégg na ko ba loola jàllee itam euh, képp ñi jabootu murid yi itam ngi ciy wax di di ko informer nit ñi dina ko xamal di leen moytandikuloo ak di ko moytandikuloo xale yi itam tarixa yëpp ñëpp kay ak labbe yi sax ñi ngi wax waaw kon nag loolu moom ñëpp a ci maas fi mu toll nii waaw noo koy ñaan ñëpp itam ñun itam